Euh, Mamadou Ounit euh, Touré euh, di jàmbaar moom la ñu invité tey mu nekk jeune industriel waaye tamit dafay politique ndax moom dafa bokk ci coalition Jàmmi Sénégal d'ailleurs sax moom mooy tête de liste bi ci élection député yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dinañu waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci wàllum politique ñu waxtaanee élection législative yi waaye tamit dinañu waxtaanee lu jëm ci wàllum emploi des jeunes. Euh, dinañu wax tamit ci euh, li nga xam ne tey euh, ma ngi siy liggéey ndax chef d'entreprise la ndax moo jiite groupe di mu nekk groupe boo xamante ni groupe bu bu yaatu la Mamadou Ounith Touré di jàmbaar maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Djily di la ziar di nuyu di ziar sa auditeur yëpp auditeur Rewmi FM yëpp. ci Sénégal ak ci diaspora bi fépp ci àdduna bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Euh, Mamadou Onit euh, Touré di jàmbaar laaj bu njëkk bi mooy jàmbaar ji lu ko si yokk ak euh, fan la jóge bon euh, ça c'est une question surprise mais dinaa ci tontu ci ci lu gaaw incha allah bon man maa ngi juddu bi ma juddoo dama sama papa tuddee ma Mamadou jàmbaar te xaritam xaritu benn bakkanam ñu doon ànd ci lu bari doon noonu aussi ay mbokk du juuf jàmbaar ñëpp xam nañ ko ci réew mi nekkoon député à l'Assemblée nationale hmm, yal na yàlla xarit ka jana yokk leeram ci àddina bu ne alors kooku lañu ma tuddee donc Mamadou juuf jàmbaar ñu dàkkantal ko jàmbaar donc jàmbaar googa moom a topp ba tey donc bi ma juddoo rek ñu ngi ma woowee Mamadou Diouf jàmbaar moom lañ ma tuddee léegi jàmbaar gi comme la famille dëkk ba caare njal gi ñëpp jàmbaar la ñu préféré di wax Gueule Tapée itam jàmbaar la ñu préféré donc ñëpp ñi ma xam samay mbokk samay jege ñaale ñëpp jàmbaar moo gën a yomb ñu tudd ko ñu wax Mamadou Unit wala Mamadou Diouf wala Mamadou alors ba tey jii boo demoon ci fi ñu ma xamee boo ne Mamadou Unit Touré boo moytuwulee dañ naan la kooku mooy mais bis boo nee jàmbaar rek c'est facile xam nañ ne man la et c'est direct waaw mais euh, jàmbaar dafa nekk euh, tur boo xam ne ci Sénégal ci suñu làkk bu ñu ko tuddee euh, xel dafay dem ci nit boo xam ne tey euh, nit bu am taxawaay est-ce que réellement loolu ma ngi ci Mamadou Ounith Touré nit boo xam ne am na taxawaay tey ci ci réew mi euh, ci lépp loo xam ne tey dafay jëmale réew mi kanam. waaw loolu ñu ngi ci alhamdulilah macha allah ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax parce que dafa am ay valeurs yoo xamee ni dañu ko am depuis le bas mooy liggéey. partage de valeur mooy boo liggéey ba pare nga bokk li nga am ak say mbokk ak say jege ñaale loolu ñu ngi ci bu baax ak aussi bu nu gisee koo xam ne il est dans le besoin ñu jàppale ko ak itam surtout di jéem a wax lu jëm lu jëmalee jeunesse bi ci kanam loolu ñu ngi koy jéem depuis bi ñu nekkee enseignant dans les universités le développement personnel bi ma doon def mooy fexe ba ndaw ñi xam ni ñoom mun nañ compter ci seen bopp mais pas trop de confiance en soi parce que boo amee démesure day am je me rappelle benn anecdote bu ndaw laa benn histoire bu ndaw laa lay nettali dama am benn xarit boo xam mu ngi tudd Ibou Sangaré moom dafa aay ci tontu boo ko posé question dafa ay ci tontu ndax bu la tontoo tontu ba mu la jox question lay doon boo war a tontuwaat donc moom c'est comme soo Socrate noonu laa koy tooñee souvent mu am sama benn étudiant bu ñëw taxaw di ma tagg di ma sant di ma gërëm mu ne que mais yow lu tax ngay sant di gërëm kii mu ne parce que li nekk ci man moo ko def ci man daf ma wax ba man ma xàmmee ràññee ba jëf li tax man ma doon te li ma doon mu nekk waaye ba xam-xam nga ñaata emploi la créé mu ne que déedéet de mu ne léegi yow danga war a xam ñaata nit la defar waaye surtout ñaata nit ñoo liggéey ci loo xamee ne moo ko créel boppam man Ibou Sangaré bi mu ko waxee loolu maa ngi ni teg di déglu xale bi mënul tontu xamul ñaata exactement emploi la parce que jamono jooja moom ka xamoon mooy l'enseignant kiy jàngale développement personnel xamul l'employeur ou le président directeur général d'une entreprise que je suis alors Ibou Sangaré bëgg ko jàngal foofu ni ko d'accord jàngale na jàngale am na njëriñ waaye lan la def lu concret parce que dañu nekk ci dëkk boo xamee ni li ñu gën a soxla mooy actuellement lekk naan faj say aajo yu gën a ndaw alors mu ne que xaw ma ci loolu dara xaw ma ñaata emploi la créé mu ne fexeel nga xam loolu parce que le plus important jamono ji ñu toll c'est l'emploi des jeunes alors foofu mu am benn exemple bu mu joxe mu ne waat ko est-ce que xam nga ni moom mi taxaw ci biir classe bi di jàngale ak conférencier bi nekk ci tele bi di conférence wala ci tente ba mu ne que jàmbaar jële nekk marchand ambulant bi téye ay marchandises am di jaay ci soleil ci ci ci naaj bi moo ko gën a jox un bon exemple moo ko gën a joxe exemple bi yéey ci société bi mu ne ko jàmbaar jële nekk ci toolam di bay moo ko gën a moo gën a joxe exemple bi ñëpp war a suivre dans une société que xëy na moom mii nga xamee ne toog na di la joxe exemple mu ne est-ce que yow xam nga ni ñii nga xamee ne ñoo yor économie réew mi kenn du leen tudd ñu ne ci suuf ñi nga xamee ne ñoom ñoo ne ñooy feeñ rek ñu leen di tudd est-ce que xam nga ne ñële ñoo ëpp ñii gëdd xëy na wala boog ñii ëpp ñu leen gëdd léegi fondamentalement moo tax ma ne la jàmbaar ji en réalité ku nekk ci ñun war nga fexe doon ab jàmbaar ci lépp looy def yow comme ni nga nekkee jàmbaar dans ton domaine euh, sunu armée bi nekk ay jàmbaar sunu lion yi nekk ay jàmbaar ñëpp dañu war a doon ay jàmbaar ci lépp loo xamee ne ñu ngi koy def parce que métier boo jël rek bu fekkee ne yow jàmbaare nga ca li nga amal njëriñ askan wi te li ëpp solo mooy amal njëriñ askan wi. Euh, jërëjëf euh, Mamadou Ounith euh, Touré bala ñoo dugg ci lu jëm ci wàllum politique bi pour askan bi mën la déglu. correctement ci wàllum politique mën a xam aussi il faut ñu am lu ñu xam d'abord doog a ñëw ci aspect aspect politique bi léegi dañu gis ne ñu bari dañu nekk euh, yow jàngalekat yi euh, euh, entrepreneur yi jeunes industriels yi ñu gis ne ñu si bari léegi dañu dugg ci wàllum politique ndax yow mënoon nañoo xam lan moo tax nga dugg ci wàllum politique en tant que chef d'entreprise. alors euh, c'est très simple xam nga loolu mooy laaj ma exactement les raisons de mon engagement parce que avant may politique daanaa poser ay actes concrets ci société bi mais avant may yegsi ci samay actes personnels dama lay wax ni euh, dama juddu dans une famille politique wax naa la sànq sama pap politicien la ci parti socialiste. ànd ak Senghor ànd ak Abdou Diouf. sama papa El Hadj wax naa la sama turandoo itam yàlla nga yàlla yërëm. Mm. député à l' nationale. sama yaay conseillère municipale donc man je suis né dans une famille politique on est d'accord mais avant may toppatoo carrément la question politique dama waxoon ni damay lijjanti d'abord samay mbiru bopp ba man sama bopp ma mënal sama bopp su ko defee su ma duggee ci politique dinaa am liberté bi war en réalité c'était ça depuis lors mais au début sa papa sa yaay nekk. non en réalité envie politique aw ma ko woon au début pour ku xam ku sama histoire nekk moon orientation boobu beneen orientation la nekkoon te xëy na bugguma ci dugg trop tey. lu boobu dafay xaw a xóot tuuti parce que c'était carrément euh, une orientation vers euh, le soufisme. au début c'était ça donc qui n'a rien à avec la politique xam nga mooy yoonu Serigne Touba. Mhm. xam nga en réalité au début. ni ñu ko en fait li ma doon gis ci politique métti woon na ci acteur politique yi méttiwaay boo xamee ni moo taxoon ma ni man surtout doomu acteur politique yi njabootu acteur politique yi c'est pas facile parce que ay famille day disloqué wu ay nit dañuy xuloo euh, dañuy xulo tout le temps di problème yu bari xew ci politique alors man j'avais au début préféré de ne pas entrer en politique mais dafa am lu loo xamee ni Cheikh Anta daf ko daf ko daan wax mu leer nañ que si tu ne fais pas la politique la politique te fera politique boo ko def moom ci boppam moo lay def et naturellement parce que les prises de décision ce sont les acteurs politiques qui prennent les décisions et ils prennent les décisions pour nous autres et tout ce qui se fait même pour toi mais sans toi c'est contre toi. bu ko ñeneen defee mu neex la ak mu ñàkk da nga ciy ànd par force. alors mooy li ñu décider à ta place. mooy li ñu arrivé actuellement à l'Assemblée nationale Assemblée nationale gii. foofu la ñuy voter les projets de loi bu fekkee ni ñun tànnuñu ñi war yóbbu leen ci assemblée nationale ba décision bu ñu jël foofu voter projet de loi président de la république valide ko day jàll. alors li tax personnellement ma gën a engagé wu en politique mooy dama commencé samay activité sama affaire samay affaire mettre en place des instituts privés d'enseignement supérieur mettre en place euh, un programme industriel mais mu amoon ay blocage yu dans ma commune. su ma soxlaa suuf mu may ay yu bari bari la commune de Thiaré Ndial bi mm-hmm. alors département de Fatick alors samay nit dajaloo ñëw seet si ma ne ma dañu bëgg nga dugg ci politique ñu jàppale la mm-hmm. les jeunes au début les étudiants fekk ma dans mon bureau ici au point wax ma ko ma dem dans ma commune toog sama kër samay mbokki papa samay mbokk samay nit samay am di jàmm ñëw fekk sama papa ne dañu bëgg moom jàmbaar mu dugg ci politique ñun ñu jàppale ko sama papa woolu ma ma ñëw mu ne ma ñii yow yaa leen tax a jóg ba xam mun ngeen baamtuwaat li ngeen waxoon sànq moom mu toogal boppam tontu boppam ndax tungi ne du teew ñu nataal ñu ne dañu bëgg yow nga dugg ci politique ma ne leen mun na nekk waaye dafa am condition doomu séeréer la ndigal lay xaar taalibe murid laa ndigal lay xaar kon ci ñaar yëpp ndigal lay xaar te yéenay sama lépp sama papa ak imaam yéenay sama sëriñ yéena ma jàngal alquran yéena def ci man lépp luy sëriñ Tuuba ensuite yéenay samay wayjur te culture murid mooy culture murid mooy culture ci côté boobu fi ma ko déggee maanaam ndigal la nga jëfe ko dans le monde séeréer c'est ça alors donc euh, ñoom ñu ne pare nanu pour que ñoom ci seen bopp ñu jug ànd ak man ci politique accompagner ma coacher ma orienté ma ñaanal ma teg ma ci yoon bi alors loolu moo waral man itam aw ma woon foofu problème pour engager wu en politique et ainsi j'ai commencé avec les jeunes qui avaient déjà créé le mouvement Jambar mouvement Jambar du man maa ko des jeunes de la commune ñoo ko créé élargir que ba présentement mi ngi fépp am na un maillage national ah Alors donc, c'est sur la base de cela que j'ai accepté de m'engager en politique. Et surtout, la fameuse formule de John Fitzgerald Kennedy, hein, euh, Ask not hmm, what your country can do for you, but ask what you can do for your country. xam nga loolu c'est très clair donc man en qualité de jeune waruma toog di seetaan à l'heure où l'engagement est devenu une nécessité que ma bañ a engagé wu pour régler certains problèmes. département Fatick wala euh, ci Fatick euh, bu ñu ko mënee waxee noonu Fatick euh, gox la boo xam ne bokk na ci gox yi gën a sonn ci Sénégal est-ce que yow da nga jàpp ne ña fa doon def politique wala ñi nga xam ne tey ñoo doon fa ñu doon jële ay décision ñoo doon taxawal Fatick foofu da sax président bi foofu la dëkk. ngeen bokk ci gox boo xam ne bu ñu doon lim gox yi ami jafe-jafe foofu ci la bokk est-ce que yow jàpp lan moo tax ba léegi jafe-jafe yooyu am fa euh, ak solution yi tey ndax am nga solution yow. waaw xam nga euh, da nga laal foo xam ni foofu da nga mettre le couteau dans la plaie c'est exactement la le problème euh, actuellement politique dans le Sine c'est très compliqué. voilà. parce que je ne sais pas si le président de la république moom rendre na ci compte ou non mais yaakaar na ni il est à 100 cent majoritaire dans le département de Fatick or c'est pas cela la population du Sine souffre énormément wax nga ko sànq en réalité équité territoriale bi war a am amul sunu côté. Fatick amul dara yow wax ma yow lan nga gis Fatick. yow xam nga li may wax yow <laughs> journaliste nga da ngay étudier da xool situation xam nga ni Fatick département de Fatick amul lenn loo fa gis loo xamee ne nuru na développement en toute en toute honnêteté lan mooy développement man li ma xam di ko pratiquer mooy jamono gu ñu toll euh, siècle bi ñu toll dafa am ay exigences yu fi xew. ak ay enjeux. dafa am ay problèmes exigences yi xam nga ko mooy xëyu ndaw ñi d'abord. Le taux de, le taux de, de chômage est très élevé dans ce pays il faut en parle yow ñan ñooy jógee dakaar di ñëw fii. kon amul benn activité bu ñu fa. yan a pas ñan ñooy jógee dakaar di ñëw fii exode rural bi ngay dégg ñan la mais ndaw ñi nekk ci suñu gox yooyu ñooy jógee foofu ñëw Ndakaaru lan lañ fiy def en réalité damay bàyyi ma nitil la benn histoire bul gàtt rek su may jógee sama kër Ngor Almadi di ñëw di liggéey si VDN sama bureau mi ngi nekk VDN. d'habitude damay romb ay jeunes yoo xam ni dañuy toog bari souvent en face des chantiers de construction ay bâtiments yu ñuy tabax benn jour laa seetlu ne ñoom ñii war na bari nañ te dañu toog ñoom ñëpp orienté wu benn cible batiment bi ma wàcc ñëw wax ak ñoom à ma surprise mais ñoom ndekee sama waa dëkk lañ séeréer la ñuy làkk je leur ai parlé en langue maternelle en ma langue maternelle ñu tontu ma ci séeréer ma ne leen lan ngeen ni def fii ñu ne dañu bëgg ñu jël ñu fii journée. donc ay journaliers lañ menee ne bari ay journaliers lañu moom lañ bëgg doon. alors d'habitude damay ñëw bon bi ma ñëwee keroog laa commencé di jëflanteeg ñoom pour jàppale leen ci yenn ndaw yi mooy jënd ndekki ak aussi transport mais duma ko mun tous les jours. alors qu'est-ce que j'ai fait ma laaj leen ñoom lan lañ mën lan mooy seen liggéey seen métier amuñu métier pour la majorité. ma jël ci un lot laaj leen est-ce que ñoom bëgg nañu def formation professionnelle pour am métier au moins ñu ni ma waaw waaye mënuñu ko fay ma jël leen dugal leen sama institut formé leen ba présentement ñu ci bari ay plaquis plâtrier lañu coffreur ferrailleur lañu ay ouvrier lañu wala ay technicien lañu ci ay domaines yoo xamee ni mënuloo chômer dans ce pays parce que c'est très demandé loolu moo lay wan ni bu dara amoon fa ñu dëkk du ñu ñëw fii ba yendu ba ngoon jot di wut benn 2000 francs bu ñu leen fay ci. kon yow da nga jàpp ne bi Macky Sall def jëmale ko ci jeunes yi euh, daf ci lajj. dafa lajj naturellement en réalité loolu bokk na ci li tax man ma dugg ci politique bi présentement et bokk na ci li tax surtout ñu bëgg am liste pour aller aux aller aux élections législatives dem assemblée nationale. parce que xam nga lu tax politique de développement nee naa la mënuloo ko wax jamono jii te laaluloo la jeunesse. en réalité sëñ ji li c'est la jeunesse qui est l'élément central te jeunesse boobu présentement amul lenn loo xamee ni mun nañ ko teg seen loxo mais écoutez il y a tellement de projets ANPEJ ANEJ DER il y a beaucoup de projets il y a beaucoup de projets et d'agences du du gouvernement mais ces agences du gouvernement budgétivores yan réalisation concrète nga mën a gis ci jeunesse bi yow boo ko gisee nga wax ma ko moi j'en ai pas vu et surtout le plus grave mooy fa nga xamee ne foofu la président de la fekk baax muy Sine il y a aucun projet de développement yi ñu fay taxawal ñun ñi ñoo koy jéem a taxawal dans le secteur privé te dañ ñuy mettre des bâtons dans les roues l'unité industrielle que j'ai construite à Thiaré Ndial gi mais jusqu'à présent j'ai pas une délibération maa ngi koy maa ngi tabax mais amaguma délibération bu pare mm-hmm. oui dañ ma cédé surface man maa ngi maa ngi mettre samay machine dañu jógee Corée du Sud ñëw fan laa leen def j'ai pas de délibération parce que loolu xeexu politique la xeexu politique bi moo plombé le développement de Fatick du département de Fatick les acteurs qui sont là-bas dañuy xeex le président de la République amul vision globale pour le département de Fatick amul vision organisée pour le département de Fatick je pense qu'il est en train de faire une gouvernance ad hoc dans le département de Fatick et ça c'est lamentable c'est extrêmement grave mais euh, mais euh, Mamadou Ounit euh, Touré tey euh, ci département bu Fatick wala ci Fatick euh, yan activité nga fa gis yow activité yoo xam ne ndaw ñi danañ fa mën a liggéey di fa xëy di fa gont. bon man euh, d'habitude quand je parle je donne mon propre exemple sama bopp laay joxe comme exemple on est d'accord man dama ñëw euh, ma ni comme d'abord quand on parle d'emploi il faut d'abord parler de de métier d'employabilité l'employabilité mooy nit ki dafa am xam-xam ba pare am métier ñu doog di ko mun a employer jeunesse bi dama leen teel a wax dëgg ci sama côté dama leen wax ni. pour ñu mun leen a embaucher ngeen liggéey mënuñu leen jël dugal leen ci ay bureau yéen ñëpp ça c'est pas possible hein deuxièmement mënuñu leen jël yóbbu leen ngeen liggéey te jàngaluñu leen naka la ñuy liggéey ba noppi alors moo waral dans les instituts que j'ai lancé mooy le groupe am di santé boo xam ci wàllu santé rek lay formé AMDI génie et management nga xam ni ci wàllu management lay formé ak les génies ak les sciences les sciences c'est-à-dire ay informatique ay mécanique bare na ak l'institut alimentaire agro-industrie am di ñett la yóbbu wute bu ci nekk ak administration boppam alors man ma jël jeunesse bi nga xamee ne ñëw nañ vers man ak ñi nga xam ne ciblé naa leen mënu ma jël ñëpp ma formé leen wax naa la ko cinq formé nañ ci 120 plaquistes formé nañ 120 coffreurs ferrailleurs formé nañ 250 technicien en fruits et légumes transformation des fruits et légumes formé nañ aussi 200 en te technicien en transformation des des produits crémiers et laitiers formé nañu des plâtriers formé nañ ñu bari soit un total de 780 certifiés. waaw mais mais mais euh, maa ngi ñëw loolu mooy seen rôle aussi. exactement maa ngi ñëw bi ñu leen formé xam nga moo des mooy naka ngay def ba ñu liggéey ñoom ñu ngi promouvoir le to emploi parce que ko formé jox ko xam-xam bu ameem xel mun na ko utiliser pour am liggéey boppam. man noonu laa def man liggéey man wu nu ma embauché wunu ma man maay embauché sama bopp man maa embauché ñeneen nit loolu moo tax man ma génn université bañ fa toog ber sama entreprise privé samp leen parce que xam naa ne man ñu bare compte nañ ci compté nañ ci man te mun naa jël risque yi j'ai pris le risque d'investir alors ci la ñu le groupe OBI taxawal une unité de production ici à Dakar l'unité de production c'est une laiterie mooy gamme Samira bi Samira lait Samira euh, beurre Samira fromage maa ngi ñëw foofu am na benn bu ma fay tabax wax naa la ko sànq mais maa ngi ciy ñëwaat ci kanam tuuti Samira lait Samira yaourt Samira beurre Samira fromage ñooñu ñu ngi fii Mermoz Sotrac hmm? ce programme ñi ñu formé woon la ñu jël ñoo nekk équipe de production bi ñi ñu formé la ñu jël ñoo nekk équipe commerciale bi ñi ñu formé avec des ingénieurs qualifiés maa ngi nuyu le directeur industriel le directeur de l'institut monsieur Niass nga xam ne il fait un travail extraordinaire actuellement ñooñu la ñu jël moom moo leen formé ñu jël leen organiser leen dugal leen ci industrie bi actuellement ñu ngi liggéey bu baax a baax te boo seetloo normalement ñu ngi war a estimer bu ñu defee seen calcul yépp ils vont faire un chiffre de 1 milliard 440 millions léegi euh, Euh, Amadou euh, Ouni Touré euh, Mamadou Ouni Touré lan nga tax lan nga jàpp ne moo tax même bu du Macky Sall aussi kese Ablaye Wade sunu président yi lan moo tax ba léegi réussiruñu ci fexe ndaw ñi am liggéey wala ñi si ëpp am liggéey. excellent da nga may may d'abord ma tontu question bi nga ma dugalaloon sànq par rapport ak lan moo waral defuma ko sama dëkk. ba pare ma doog a ñëw ci lii ah. bien sama dëkk ah yi am na lu ma fa def. waaye damay choisir man quand j'investis chaque zone ban produit moo fa dox sama zone normalement produit céréalier yi baax dox na fa mooy les céréales céréal foofu laa teg actuellement maa ngi tabax benn usine boo xamee ni mu ngi ma coûté 637 millions c'est en réalité 523 employés ñoo fa war a nekk par rotation ñooñu li ñu war a liggéey mooy la transformation des céréales dugub yeeg dugub jeeg yooyu lañuy ñuy transformer ma un partenaire boo xam ne c'est un partenaire sud-coréen Ruta Global Invest multinational moom moo signé ak man benn contrat boo xam ni dafa engagé wu nu day jënd sama matériel sama sama production yëpp parce que moom moo ma jaay les machines industrielles bi ma demee Corée du Sud dama négocier ak ñoom maa ngi jënd machine industrielle yi damay taxawal usine waaye yéen bëgg naa leen jaay sama production ñu ne ma intéressé na leen parce que ñoom itam bëgg nañ les produits locaux yu jógee Sénégal ñëw parce que ñoom mun nañ ko utiliser te am nañ marché bi. ma ne leen d' accord alors j'ai créé l' industrie j'ai créé la main d'œuvre j'ai créé le marché de consommation bref la rentabilité est assurée. d'accord léegi jeune Sénégal jeune Sine yooyu nga laay wax. actuellement am nañ un projet boo xam wax naa la que 523 employés ñoo fa war a nekk en rotation. yoo xam na ñoo fa war a liggéey léegi nag ci li nga doon wax ci question bi mooy lu waral politique de la jeunesse politique de jeunesse di échouer à tout moment c'est parce que tout simplement il y a pas une véritable étude faite sur la question de la jeunesse jeunesse bi dañ doon jël rek di financer yow boo jëlee un jeune sénégalais nga jox ko disons un million ne que demal nga liggéey mais ci lu muy liggéey mais il faut nga tàggat ko ba noppi boo ko formé wulee wan ko yoon mais lu muy def ak xaalis bi yaa gën a xam ne un jeune sénégalais nga jox ko un million mënu ko dugal ci poche am téye ko da koy dépensé bu jeexee léegi moo am problème. mais est-ce que kon solution bi du woon état bi bañ a bañ a jël moom directement. mbirum euh, emploi de jeunes. mais comme am na euh, am na ay euh, am na secteur privé mu dooleel secteur privé boobu ñoom ñu xool nuñ koy lijjante. excellent yow mii sax bu ñu la laajoon nga conseil président de la république na dina réussir parce ou bien c'est une mais mais wax la ko waaw mais tamit euh, tey bu ñu gisee tamit yéen engagement bi ngeen di faral di am euh, tey bu dee ñi nga xam ne dañu nekk ci secteur privé bi yor ay entreprise euh, engagé wu ci wàllum politique ñaari ban ñett nga dégg redressement fiscal ñoo ngi may xoqatal ñoo ngi may bundu xataal loolu dañ koy faral di dégg lan nga jàpp ne moo ko waral. très bien damay rebondir d'abord ci li nga jëkk a wax mooy il faut du development coaching mooy. au lieu que état de réinventer la roue am na des producteurs et des acteurs qui sont déjà là mooy li nga wax sànq am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey te li ñuy liggéey am na njëriñ ci askan wi développement mi ngi am parce que am nañ performance bi ñuy indi ñooñu dañ leen di organiser appuyer leen jàppale leen pour ñu réussir waaye bu fekkee ne comme ni nga wax dañ leen di xoqatal ci ay redressement ak ay paiement wu taxe ak ay paiement wu lii diisal yëf yi ba ñoom ci seen bopp ñi nga xam ñi ngi entreprendre mu métti ci ñoom ba soit ñu lajji wala ñu ñu souffrir ñeneen ñi du ñu am envie jël ay risque créer ay entreprise comme ñoom ba pare ngay jël ñooñu xaalis di leen jox mais c'est un paradox gisoon ne pare c'est paradoxal au moment yow yaa ngi xoqatal ñi fi def dara yow yaa ngi jël xaalis di jox ni pour ñu def dara hmm. mais il fallait donner l'exemple c'est ce que j'appelle le development coaching <clears throat> mooy ñi fi nekk actuellement di def dara nga jàppale leen surtout bu fekkee ay jeunes lañu. Mhm. organiser leen appuyer leen wàññil leen yu diis yi ngay teg seen kaw ba ñoom seeni entreprise réussir bu ko defee nga joxe nag des modèles de développement. Mhm. sur la jeunesse. d'accord ngay jël ñeneen nit mais da ngay jël ay jeunes yoo xamee ne ñoom ñoo ko réussir nga nga nga nga wane. est-ce que tey euh, sunu nguur yi amul parparloo bu ñuy def. ci entreprise euh, euh, étrangères yi ak euh, entreprise nationales yi. d'accord boobu c'est une question waaye balaa maa yegg ci étranger yi da may may ma tudd ci sénégalais yi ba pare par par loo nga wax am na ci biir réew mi balaa ngaa jéggi réew mi dem. entreprise am na ay entreprises sénégalaises yoo xam ay sénégalais ñoo leen moom man li may fay ñoom duñ ko fay. looy fay si. samay taxes samay charges samay responsabilités yi may fay. Mhm. war warloo ko ak état warloo ko ak état man obligatoirement damay fay te ñoom duñu ñu fay. lu tax ah xëy na dañuy politique ànd ak nguur gi. loolu itam benn benn benn comportement bu baaxul la bu ñu bu ñu res bu ñu apprécié wul ci suñu njiit yi surtout le le régime actuel ñoom boo àndee ak ñoom koo munta doon loo munta def baal nan la ko waaye boo àndut ak ñoom koo munta doon daañu fexe dal sa kaw lii moo waral itam yëf yi métti. alors ma ñëw nag ci entreprise étrangère yi daf ci am loo xam parce que man je peux pas me permettre certaines mënuma wax ni le Sénégal doit être fermé tëju claquemuré wu isolé wu carrément du reste du monde non nous sommes à l'ère des interdépendances c'est-à-dire dafa am loo xam ne dafa am Chine amul Afrique Chine di ñu ko jox ñun moo am loo xam Afrique la am amul Chine ñu koy jox waa Chine comme man regarde xoolal le la manque bi ma war a joxe waa Corée du Sud waa Corée du Sud man maa ngi leen di war a produire 764 tonnes de mangue par production mangue séchée dry mangoes mais mangue boobu amul ci ñoom moo tax ñu koy jël si fii léegi man buñ bu ma nee man dara du jóge Corée du Sud ñëw fii wala entreprise sud-coréenne du ñu agir Sénégal kon man itam waruma exporter sama produit Corée du Sud alors donc côté boobu dama bëgg mu leer interdépendance la ñu nekk du point de vue de la performance économique et de l'industrie faaw ñun ñu accepter jël ci ñële lu baax ba pare ñoom itam ñu jël ci ñun lu baax cependant dafa am nag yoo xam ni c'est extrêmement complexe mooy sunu gouvernants yi seen relation ak extérieur dafa jéggi dayoo parce que le plus souvent dañuy ji sax ni nos gouvernants dañu privilégier les étrangers plutôt que si ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. d'accord euh, j'ai un ami le président Ibrahima Diop. Euh, le président du mouvement Jàmmi Sénégal dafa am habitude di wax ni Sénégal rek ngay nekk tu te sens étranger chez toi. mooy nga ñëw Sénégal. nga jàpp ne yow doxandéem nga ci sa biir dëkk. ma euh, Mamadou euh, Ounith Touré di jàmbaar fii Sénégal dañu gis ne li ñu am autonomie dafa bëriwut maanaam moomuñu suñu bopp ci lu bari bien vrai que tey am na ñenn ñoo xam ne ñoo ngi wax ne président ma ngi def ay réalisation tey mën nga ne terre wala wala ay hôpitaux te man jàpp naa ne loolu aussi yomb na defar ndax xaalis ngay jël woo benn entreprise bu ko defar nga jël xaalis nga yëkkati nga fay ko mais du ñu faral di gis euh, lu jëm ci wàllum industrialisation comme par exemple tey ay usines sànq maa ngi invité euh, koo xam ne cordonnier la mais ñoom nee nañ der yi nga xam ne fii lay jógee dañ koy jël fii yóbbu ko ay Chine ñu defaraat ko Chine indiwaat ko matière bi Euh, lu mel noonu tey euh, lan nga ci xalaat ñu moom suñu bopp ci yenn yi. waaw loolu mooy fulla ak fayda moom sa bopp ci lépp sax moo gën. mais dafa munta ne. est-ce que moom suñu waaw mun nañ moom suñu bopp ci lu bari. par exemple par exemple. dama la koy dama jox exemple yu simple parce que man maa ngi ci domaine bi arachide par exemple gerte. Mhm. yow xam nga ñaata produit moom na génn ci gerte ak a bari. huile bi ngay jënd ji. gerte gii huile bi muy defar moo dàq ci huile yi. mais amuñu si autonomie. ñeneen ñi dañuy ñëw fii parce que bëgguma tooñ ñeneen ñi dañuy ñëw fi étranger yi jëndu suñu gerte gi. mais Chine voilà waa Chine dañuy ñëw fii jënd suñu gerte yi yóbbu ko. transformé ko indi ko jaayaat ko. c'est ce que par la la, la de l'échange mais, depuis son temps même noonu def ci jën yi aussi. jën yi noonu lépp ak cajou baa ngi nii cajou baa ngi nii noonu donc ñun finalement. dañ ñu agressé chez nous économiquement c'est de l'agression économique te ñu ci dara. kan moo ci man dara c'est c'est l'État c'est l'État. nu mu nekkee État l'État a failli ni mu nekkee État mooy en toute honnêteté je pense que c'est la corruption parce que mënuñu ñëw ñoom am fit bu doy ni ñu ñëw nangu suñu secteur clé te État amu ci responsabilité État moo foofu noonu tu as parfait vous avez parfaitement raison État moo yaafus. état moo cuune état moo bàyyandiku état moo jaay boppam noonu laa ko mën a waxee parce que état moo jaay li mu moom. li askan yëpp moom état moom bu jàppale woon secteur bi euh, tey sunu diwlin gi euh, ñun ñoo koy yoral suñu bopp. lépp lu xeetoo jën. ñun ñoo koy yoral suñu bopp. li ñu war a def mooy mettre en place xoolal organiser les pêcheurs organiser leen appuyer industriel pêcheurs yi parce que am na Sénégal jàppale leen ñu teg ay. unité ay usines yu mag yoo xam ne jën lay toppatoo nga xam ne ñun dañuy mën a exporter suñu bopp suñu propre jën pas ñoom ñu jël ay bateau ñëw suñu géej gi jël jël ñëpp dem seen yoon mais c'est alarmant à la limite c'est extraordinaire mais sama genre gii boo leen di interroger ci lii dañuy mer parce que xam na nañu exactement suñu produit yi ban valeur la am à l'étranger mais ñun dañ koy dañ koy bazarder comme ça ñoom ñu ñëw jël yóbbu. te mënoon nañ organiser les industries. mais Mamadou est-ce que xel nangu na. Euh, sunu espace bi sunu naaj wi sunu ndox mi sunu jeunesse bi euh, mbayum noor carotte soble pomme de terre euh, état tegul sax benn politique ay chambre froide infrastructure de conservation yoo xam ne production bi dina bëri ban nañu mën nañoo nekk premier producteur au niveau de l'Afrique lan moo tax loolu lépp ñu am ko ba pare di jëggaani excellent excellent lii mooy débat bi boo gisee Jàmmi Sénégal lii moo tax mu ñëw en réalité parce que ay jeunes la nuyu organiser wu am benn vision bu mu bu ñu am ñi nekk Sénégal ñi nekk étranger alors li nga wax ni mooy comment s'organiser c'est juste une vision politique une volonté politique d'un État organiser wu ba ñun le secteur euh, jën ñu nekk ñu fekk ñu bokk ci les leaders dans le monde lu jëm ci gerte ñu nekk leader dans le monde lu jëm ci mille dugub ñu nekk leader dans le monde lu jëm ci fruit par exemple la ñu nekk leader dans le monde parce que yàlla dafa ñu may euh, valeur produit yi nga xam ni nit ñi dañ ko soxla à travers le monde yàlla daf ko may Sénégal ensuite dafa am leneen loo wax bu am solo mais bu ñu soxla woon jus mangue day dañ koy jëggaani te mango baa ngi ni di yàqu moo waral man j'ai un projet boo xam ni euh, ñu ngi ko tuddee euh, Casamengo mine Casamance la unité usine bi may tabax caari njal gi usine bi may bi ma nar a tabax Casamance moo ko moo ko war a ëppee cinq fois bu bii waree produire par exemple mille tonnes bële mënatul produire cinq mille tonnes te lépp par exemple mango bu Casamance bi si on transforme cela mais valeur ajoutée bu muy doon kenn xamul nu mu toll ensuite la jeunesse aura son emploi et c'est une demande c'est une demande pressante de la jeunesse casamançaise d'accord alors léegi am nañ jeunesse wax nga ko sànq am nañ naaj wax nga ko sànq yàlla may nañu am nañ ndox yàlla may nañu am nañ lépp xam nga ñàkk ñu dara lenn rek lañ ñàkk mooy volonté politique pour se développer moo tax penseur ba ne woon na et si l'Afrique refusait le développement est-ce que nekkul Afrique moo bañ parce que yenn yàlla mënu la ko may ba pare nga nekk un pays boo xamee ne wala un continent boo xam da nga pauvre je parle de toute l'Afrique d'une manière globale ah parce que li ma naqari Sénégal moo ma naqari Côte d'Ivoire moo ma naqari disons Bénin moo ma naqari euh, Burkina Faso moo ma naqari partout parce que moi quand je vois l'Afrique je vois une Afrique unie une Afrique unifiée d'accord voilà jërëjëf euh, Mamadou euh, Ounith Touré léegi ñu dugg ci wàllum politique bi yéen da ngeen a taxawal coalition Jàmmi réew mi. jàmmi euh, coalition jàmmi Sénégal yéen euh, seen coalition bi kañ ngeen ko taxawal ak ndax tamit coalition la boo xam ne aw kese la wala coalition la boo xam ne contenu bi contenu boo xam ne am na ay leaders yu am solo yu fi nekk ak ay boroomi xam-xam ak lu ngeen naan loo xam ne tey moom ngeen fa yéene yóbbu assemblée nationale. ok au sortir des événements de mars euh, après les élections locales, des jeunes intellectuels se sont regroupés. Nous nous regroupés. Et nous avons une vision commune. Nous avons des ambitions pour ce pays. Et nous avons un programme pour ce pays. Moi, il est Molor La formation des jeunes, l'emploi des jeunes, des priorités la santé, des priorités en réalité li ngay woowee. loolu ngeen bëgg a ñaxtu na assemblée. oui loo fa lañ jëm alors assemblée nationale itam dañu seetlu ñun bi ñu réunir les jeunes les jeunes euh, yi ma la wax sànq am même vision ñi nekk à l'extérieur par exemple euh, Babacar Fall euh, Canada Amérique du Nord Mohamed Sambou Belgique Mohamed Nabisso en France Ibrahima Diop en France Aliou Ndiaye bu Sénégal bu Dakar Kër Massar le président du BRG Ibrahima Diop wax na ko sànq le président du mouvement Jàmmi Sénégal Tamsir le mouvement de AMTD. Euh, man mi le président oui mun naa la defal liste bi nous sommes partout. Eh waaw mais euh, wax nga fi sànq euh, à l' étranger mais tey ci Sénégal est ce que tey ci région yi nekk ci Sénégal yëpp boo demoon tey di nga fa fekk ñu bokk ci coalition Jàmmi Sénégal. moom laa lay expliquer ni c' est à dire la coalition Jàmmi Sénégal est très bien structurée mais nag on est d'accord cest wu parce que c'est une coalition quand même. mais est-ce que pare une coalition de partis et de mouvements. pare nañu pare nañu pour dem élection parce que suñu parrainage wax naa la ko sànq. nee naa la nous on est très bien structuré on est très bien organisé actuellement tout est en marche. yéen a oui. bi. c'est pas un problème on a pu régler tout toutes ces questions là xam nga lu jafe. xam nga demal dañu la ni man maay la la tête de liste. de la coalition. est-ce que dégg nga les coalitions ñuy wax ni di mooy sunu tête de liste parce que ñun dañu ni quand on veut gouverner autrement nous sommes dans l'obligation de commencer autrement mooy au lieu que ñuy def comme tout le monde ñun dañuy def autrement à notre façon li ñu jàpp ne moom moo gën a yell pour ñu yegg mais mais amul yeneen coalition yoo xam ne mën ngeen wax ak ñoom. pour dem ci élection yi. c'est possible en réalité waxoon naa que je parlais de la liste unifiée pas unique parce que ci tubaab dafa xaw a compliqué unique bokkul ak unifié alors la liste unifiée pourrait être possible mais c'est un idéal disons-le ainsi mënuñu dajale par exemple wàllu wàllu Sénégal euh, jàmmi Sénégal. yeewi yeewi askan wi. ak yeneen coalition yoo xam ni organisé wu nañ tabax jot na par exemple mm-hmm. ñu form organiser toutes les coalitions en une seule coalition day jafe c'est un idéal mais tabax jot na mën ngeen dem tabax jot naturellement et d'ailleurs waxtaan nañ ci waxtaan nañ ci ak ñoom lu bare bare par rapport ak euh, ànd gi et puis c'est très possible aussi parce que la réflexion elle est poussée maintenant li ma bëgg a wax mooy lépp lu ñu war a def pour amal njëriñ askan wi mën nañu ko jëm pas pour combattre seulement un un adversaire politique Macky Sall non combattre Macky Sall taxu ñoo jug. d'accord mais lan mooy seen option 1 2 plan 1 2 plan euh, plan A plan B plan C. maanaam le, le planning abécédaire. Ouais. voilà ñun notre plan A. mooy ouais. d'aller aux élections Jàmmi Sénégal sous la bannière Jàmmi Sénégal. notre plan B mooy aller aux élections avec une autre coalition. bu munta doon. comme boo xamee ne ñun ak ñoom déggoo nañu am nañu d' abord on partage la même vision te déggoo nañu itam par rapport à quel type de gouvernement quel type d' assemblée nationale lañ bëgg am bon wax nga ko sànq ban nga tudd sànq tabax jot na. oui c' est possible. boobu Boubacar ñoom docteur Abdoulaye Niane c' possible. alors ensuite bu ñu organiser woo ak ñooñu mun na am ñu dem troisième plan bi. mooy il est possible aussi que toute l'opposition def benn éveil de conscience ñëpp yeewoon doone ah écoutez il faut que ñun ñoom ñu ànd ce qui est un idéal mooy notre troisième plan donc mooy suñu plan C suñu plan A c'est Jàmmi Sénégal suñu plan B mooy avec une haute coalition tudd nga sànq tabax jot na ak suñu plan C maintenant c'est vraiment euh, la liste unifiée la liste unifiée d'accord mais euh, élection euh, législative yi mooy nekk sa première élection wala tey mos nga jéem a tenté élection euh, locale wala oui Euh, élection euh, euh, locale dem naa élection municipale voilà. dem naa oui oui dem naa élection municipale. et bon oui d'accord je suis un démocrate mun wax ne gagné nañu moom. je veux pas entrer dans les détails. parce Donc, que moi, non c'est une liste parallèle de, la mouvance présidentielle. je suis arrivé deuxième. mais du Benno moo la gagné. non Benno mi ngi sama ginnaaw. yaa gagné mais liste parallèle u Benno moo gagné et comment c'est fait c'est c'est extraordinaire d'ailleurs man du may bëgg di di intervenir ci loolu mais yow dama lay bàyyi nga nga wax ak say auditeurs ñu xam exactement bulletin yaa ngi nii yow yaay wax ak ñoom bulletin yaa ngi nii xoolal bu baax ban bulletin moo leer ak ban bulletin moo leerul on était dix candidats mmh. bu baax yow boo xoolee rek di nga xam ban bulletin moo leer moo leerul benn bulletin rek moo leerul ci bulletin yëpp benn bulletin lañ saboté boo ko xoolee di nga xam benn bulletin rek lañ saboté. conférence patriotique pour gis nga bulletin bii rek lañ saboté. Mm-hmm. nay bii laa demee élection man. Mm-hmm. parce que j'ai demandé un parti politique mais aw ma ko joxuñ ma autorisation. Mm-hmm. lan lañ ma jox récépissé de dépôt. fa laa yem donc mënu ma dem élection avec mon parti xam nga loolu leer na. mouvement du dem élection. j'ai pris le bulletin nay leer mais gis nga dañ ko def. Mhm. yow mos nga gis bulletin bu mel nii ci élection. doy na waar. très bien bulletin yëpp a leer yi nga seen bulletin ñoom ni mu leeree. Mhm. ak seen list parallèle bulletin bi ni mu leeree. Mhm. mi ngi nii alors donc lii rek firnde la ci li ma la doon wax sànq mooy Afrique mooy xeex boppam. des jeunes yoo xamee ne dañu ñëw di former ñi. di leen jox liggéey indi développement ci Sine nga xam ne amul lenn lu fa taxaw président Macky Sall dafa fàtte lu Sine dafa fàtte la jeunesse du Sine il y a rien loo xamee ne mun na tax la jeunesse du Sine reconnaissante par rapport ah ah oui je suis deuxième aux élections kon man après le ki ki gagné maa ëpp parce que li ma gagné en réalité je peux te montrer tout de suite le résultat nga xool ko résultat baa ngi ni te fi mu ma gagné mooy exactement fi nga xamee ne foofu la foofu la nu foofu mooy bureau de vote am moom et bureau de vote boobu ñu ngi tëj 22h 23h j'espère samay bureau de vote ñu ngi tëj 18 ñu tëj amul kenn kuy duggaat même bu fekkee ne liste bi guddoon na ñi doon xaar bari woon mi ngi nii non non soxla recours parce que je suis pas un je suis pas un politicien professionnel mi ngi nii gis nga gis nga maa ngi nii donc 1300 et quelques 1100 et quelques donc distance bi. c'est lii la ma rawee. et puis lii ma bu ma rawee c'est dans son bureau de vote nee nañ am na trois 300 voix ci bureau de vote am man cinq voix laa am ci bureau de vote am le son bureau de vote 23 heures la tëj. donc bàyyi naa leen ngeen réfléchir yéen. léegi euh, ba a topp mooy suñu campagne électorale ñoom dañu doon topp di sànni ay xeer di menacer di def lu nekk. ñun musuñu riposter parce que yar ak teggin bu ñu ñu xamee ci loolu la ñu en plus li ëpp solo mooy politique jaraluma dara parce que politique defalaguma dara amaguma lenn lu jóge ci politique au contraire man maay def ci politique pourquoi politique sociale la non boo laajtee kan moo tabax jàkka yi équipé leen dans la commune de Thiaré gi benn tur lañ lay wax jàmbaar boo laajtee kan moo tabax jumaa yi jumaa jumaa juma dañ naan la jàmbaar boo laajtee kan moo ñëw fekk case de santé transformé ko def ko poste de santé dañ naan la jàmbaar bi preuve la boo laajtee kan moo fekk dëkk boo xam plusieurs milliers d'habitants la amuñu case de santé bu leen jege ñuy jël ay charrette mbaam wala ay charrette fas yëpp ci jigéen ñoo xam dañu war a dañuy mattu war a dem ami ji doom ñu leen di yóbbu ay kilomètres et des ay kilomètres et kilomètres mu tabax mu commencé tabax case de santé boo laajee kan moo def loolu dañ naan la jàmbaar. kon jàpp nga ne bu jaaroon yoon nga gañ. mais naturellement. d'accord léegi ñu ñëw ci euh, élection euh, législative yi tey euh, nombre de nombre de députés yi tey 160 dañ doon wax ne dañu ko bëgg a yóbbu ba 172 léegi dañu wàññi li nga xam ne mooy liste national bi. ñenn ñi jàpp nañ ne ñi nga xam ne tey euh, doon nañu doon nañ leen jàppale euh, plus fort rasi yi boo muy tulee danañu am jafe-jafe ñenn ñi pour nekk député. très bien euh, loolu politique la ñu ngi nag ci biir politique xam nga dafa am ñaari type de politique yu ma yu ma distingué man bi ma tàmbalee politique ba léegi dama ko distingué mooy dafa am la politique politicienne am la politique de développement la politique politicienne elle est calculatrice. la politique de développement elle est pragmatique fii mooy différence man sama option c'est pas la politique politicienne c'est la politique de développement donc je suis pragmatique comme un industriel naturellement dama gis ne ñoom dañu dugal projet de loi pour naxaat opposition bi loolu laa jàpp man dañu ni dañuy wàññi dañuy yokk autant pour moi nombre de députés yi de sept c'est ça opposition bi ne déedéet ñu dugal amendement ne ok dañu koy wàññee ci liste nationale bi naturellement ci li ma jàpp man sama analyse bopp la mun naa jum dugal ko ci départemental en considérant que ñoom département yi ñoom jàpp nañ ne ñoole leen di gagné te raw gàddu la donc fi nga amee raw gàddu moo la gën a arrangé yow nga gagné que nga gañ que fi nga xamee ne amul raw gàddu. Ah, effectivement donc ñoom ils ont déjà fait leur calcul. et ils ont déjà jubilé carrément ils pensent qu'ils vont rafler ces élec ci élections yi. Mmh. la mouvance pense que day gagné élections yi sans problème. alors man. personnellement naturellement bon d'une part oui mais ku nekk ak say sa sa mode de réflexion ku nekk ak sa façon de voir la les choses xam nga les humains n'ont pas la même structure de personnalité en psychologie nit ñi bokkuñu nu ñu xalaatee ku ci nekk ak ni ngay xalaatee ak ni deme demee y a un recours les députés de l'opposition dugal nañu recours. mais kañ la ñuy le problème recours boobu ba mu a dem élection législative déjà mun na bloquer le système électoral mun na bloquer élection yi parce que munuñu le, le, le décret de répartition des sièges mënul génn tànk réglé wuñ ce problème de recours te décret bi bu génnulee élection mënoo wax ne élection day am tànk décret bi génnul donc yii ay ndëgg sërëx yoo xamee ne état moo koy teg pour nax waa opposition opposition tam bu gënoon a organiser wu nag dans ce cas dina xàmmee genre problème yi daa genre piège yi te bu ci du ci dugg mukk d'accord mais malheureusement on assiste à un problème. Euh, Mamadou euh, Ounith euh, Touré yow yaa nekk tête de liste euh, coalition Jàmmi Sénégal euh, ci élection yi nga xam ne moom la ñu moom la ñu dëgmal léegi ñu wax ndax waxtu mi ma ngi waaj a jeex dañu gis ne dund gi dafa metti ci sénégalais yi njëg yu bari aussi dafa yokk ba jéggi dayoo lan moo ci sa xalaat. mais c'est posé nga ma question bu ma neex parce que petit industriel que je veux être loolu daf ko intéressé trop euh, dafa am benn président américain bu doon wax ni le développement d'un pays ne se mesure pas à la par la grandeur à la grandeur de ses avenues et de ses boulevards mais plutôt à la capacité dont dispose le gouvernement à régler les à satisfaire les demandes les plus primaires de la société ou de la population mooy Abraham Lincoln il a parfaitement raison foofu dama ànd ak moom à 100 pour cent mooy les denrées de première nécessité kooku boo ko mënulee régleel sa réew mais en réalité amatuloo place pour ci ci jiite leen da nga war a wàccee sa bopp yow en toute honnêteté un état boo xam ne du prévoir dara état boo xam lépp ay ñëw daanu ci kawam état boobu amul raison d'être mais ah lii c'était prévisible naturellement c'était prévisible. kon amuñu vision. non mais zéro ci côté boobu mënuloo yow ne euh, écoutez sëñ Jili ci lan lañ jugee ci mbas. Mhm. la pandémie à coronavirus Covid 19 mi ngi ba léegi mi ngi raam jeexagul ñu jugi ci loolu guerre Ukraine Russie mhm. te jeexagul bu ñu jugee ci loolu ñaanuñu ko yàlla mais faaw ay problème di am. Mhm. adduna noonu la sosoo. lu neex ak lu naqari moom moo moo la moom la yàlla mooñ wàccee ñu ak loola donc faw ñu ñu jàkkaarloog loolu fadda falla budda kon obligation wu état le réflexe premier d'un état c'est de prévoir les problèmes et d'anticiper à la résolution de ces problèmes là mais notre état wax naa la ko sànq gouvernance ad la ñuy def comme dirait le psychologue Mbodj parce que pourquoi gouvernance ad hoc la ñuy def mooy lépp mooy li li ne kët ne yoon la ñuy toppatoo mais ça c'est extrêmement grave pour un état qui se respecte li ñu waroon a def mooy ñun wax naa la ko sànq te en réalité boo seetloo suñu débat maag yow du début jusqu'à maintenant ci même ordre d'idée la mooy naka la ñuy def ba ñun ñu moom suñu bopp ci yenn yi c'est très important mais yow le premier pays bi produire blé ñi produire blé ñoom ñooy xeex ñi produire ñi ñi commercialiser gaz. ceeb bi ñuy bay fii ñun sax dañu am problème lu ñuy bay. naturellement voilà donc ñun amul lenn loo xam ne am nañ ci indépendance autonomie autonomie laa la la bëgg a wax autonomie alimentaire. indépendance alimentaire. dañ ko war a am. dañu war a am amuñu indépendance boobu parce que mënuñu am indépendance boobu te amuñu autonomie ba ba pare balaa nga ne wax indépendance da nga autonome. dëgg doo nga mën a indépendant. waaw mais Mamadou euh, man li ma si jaaxal mooy. diwlin gi dafa ko su nekk fii. ñu am euh, gerte gi fii lañ koy béy. gerte gi waaw bassin arachide jën yi cher. Euh, pour géej gaa ngi nii océan Atlantique waaw poton yi sax dafa yokk doon na bi doon jar 700 bi ma ko laajee barki démb ñoo ngi ne lii mooy ce qu'on appelle une question de bon sens. boo xoolee euh, am na fii ay usine cimenterie ñetti usine xaw ma concurrence da see am xaw ma lan mais ciment dafa cher. oui ba léegi wax naa la ko wax naa la ko c'est une volonté politique qui manque. en réalité mënuñu am lépp comme ni ñu ko waxee xam nga yaay wax en réalité yéen yi yaa koy wax sax yu bari man waxuma ci côté yooyu li ñu am yaa ma ko gën a xam ji nga képp koo fekk sénégalais boo fekk muy nelaw nga yekk ne que lan la Sénégal am mu wax la ko lu mu manqué mu wax la ko lan moo waral ñu mënuñu développer volonté politique moo ñu manqué ak surtout politique poli politicienne dong la fi gouvernement bi nekkee. waaw mais njëg yi yokk na mais ñoom ba léegi luxe bi parce que ñoom loolu lañ xam en réalité comme j'ai de dire boo sonnulee pour am dara doo ko jox gëddaam maanaam ñu ñëw rek nommé la nii ministre nga nga ñëw voilà di mais ça c'est facile ça c'est trop facile ñu jox la ab direction générale xamuloo comment on crée une entreprise ñu jox la direction générale xam nga man tey <laughs> xam naa comment on crée une entreprise parce que taxawal naa samay entreprise tey xam naa risques yi ci nekk xam naa charge yi ma am xam naa responsabilité yi gàlloo sama loos xam naa lépp alors ëllëg si biir man lépp lu may def mooy naka laay def pour sama entreprise jëm kanam naka laay def pour couvrir samay employés naka laay def pour man fidéliser samay partenaires ak samay clients c'est ça mais boo xamulee loolu yow ñu jékki-jékki rek dénk la benn direction générale lu état mais foo jëm ak moom mais lii ngay lii li ngay dégg rek tout le temps mooy euh, yóbbu na xaalis ba fii yóbbu na lii fële yóbbu na lii fële def léegi yow benn question pour ñu tàggoo FMI Banque mondiale daf ñuy faral di jox xaalis xaalis boobu ñenn ñi dañu jàpp ne fi ñu ko war a dugal dugaluñ ko fa beneen bi ñoom ñu la jox xaalis bi ñoo lay forcer parfois fi nga koy dugal te ñun euh, ni ñu bëgg a doxalee réew mi mooy dañu jàpp ne xaalis il faut que ñu lebee ko rek ñun daal presque xaalis bi ñu jëfandikoo leb la wala euh, wala wala ay taxes est-ce que amul doon benn solution. waaw xam nga mënuloo nag euh, mënuloo forcer ki lay jox ne man sama bopp mi ngay jox mënuluma sama bopp li nga ma jox fii laa koy yóbbu. le plus souvent ça pose problème su fekkee système bii la ñuy wax le système actuel le système actuel est fait en sorte que la main qui donne c'est celle qui commande c'est comme ça que ça marche alors Banque mondiale FMI moo am li nga soxla yow moo yor xaalis non mhm. moom dafa am politique de développement orienté dafa am vision boppam yow ni ngay amee programme u état ni ngeen di amee programme u rajo noonu lañ amee seen programme bopp bu ñu ne ci ligne lii la ñuy financé mais ala kulli xaal foofu lañ koy yóbbu bu ñu ñëwee ne Sénégal sox mën nañ leen jox par exemple tant de milliards mais dans le domaine de léducation éducation ngeen koy dugal fayee ko ay bourses par exemple pour les étudiants fan la jëm mënu jëm feneen alors ma posé la benn question ndax yow ki lay jox bëgg na yow nga am ba dootu la mun a jox bu fekkee ne jox gam lay jox ca la gis boppam alors donc tontu nga question ba ña lay jox ah, nag naturellement dañu bëgg chaque jour ñu tàllal loxo c'est effectivement cela te ñun amuñu fulla ak fayda bu doy nii ñu ne leen déedéet ni leen ñukk lijjanti ji leneen. de teg yeneen programme gëm suñu bopp moo ñu desee moo tax ma ne la une mauvaise volonté politique moo fi nekk. d'accord bu fekkoon am na une volonté politique bu bu kii dans ce cas on allait on allait se développer. jërëjëf euh, Mamadou Ounith euh, Touré euh, lan laa la lan laa laajul ci deux minutes rek. waaw très sincèrement laaj nga ma lu bari. lañ nga ma l'essentiel dans ce dans ce pays li nga xamee ni moom dañ war a def li nga xamee ni moo fi doxul mais damay lancer un appel benn appel lay lancer à la jeunesse sénégalaise parce que ñëpp ñu ngi tudd jeunesse jeunesse jeunesse ku jug ne la jeunesse la jeunesse dafa am benn euh, exposé bu ma doon def avec mes étudiants ma ni leen boo leen defee étude def nañu étude ñun ba pare ba pare avec le avec monsieur Mbodj Mbaye Kouma Mbodj qui est psychosociologue conseiller étude bi ñu def mooy soixante-dix à quatre-vingts pour cent de la population sénégalaise ay jeunes lañu mais ndaw ñooñu ñoom ñoo soxla tey bokk ci société bi te bokkaguñ ci société bi xam ko war a amuñu lenn lu leen dugal ci société bi bu fekkee ne ñoom dañu war a jàng njàng mi dox na est mi dox na grève yi bariwul grève yi bariwul très bien bu fekkee dañ leen war a employé emploi am na emploi amul kon yow cette jeunesse la fu mu jëm fu mu jëm problème a ngi noonu moo tax man may lancer un appel ñu xippi xool bu baax a baax a baax li ñuy def ci élection législative yi di ñëw parce que c'est des il s'agit d'élections très déterminantes quant à la suite des événements dans ce pays lépp lu nar a ñëw ëllëg dafa basé wu actuellement ci élection législative yi bu ñu falee ay député yoo xamee ni dañ leen a fal nii rek parce que qui porte le programme moo leen neex seen idole la ñu tànn kooku. xoolu ñu exactement les profils qui sont dans la liste tànnaale ñëpp yóbbu leen ci assemblée nationale ga ñuy dóorante ay kurfeñ di fa nelaw di fa saagawante ñu leen di jàpp ci ay faux billets ñu leen jàpp ci ay passeport diplomatique ak yu ni mel mais c'est extrêmement grave ci image yu Sénégal. est-ce que yow pare woon nga boo demoon assemblée bàyyi sa salaire tout ça. non mais salaire déjà lan mooy salaire. li ñu lay fay payoor yi ñu lay fay. assemblée du du bàyyi rek du bàyyi rek mooy problème bi mais organiser pour que ñii nga xamee ne ñoom laa tudd sànq ba léegi depuis bu ma toogee ci émission ba léegi ñoom lay wax la jeunesse ñu mun a am formation bi war am emploi bi war xam nga lu ko waral. dama axé man sama réflexion ci benn cadre mooy ndaw ñi ñu ngi leen di coow di leen coow bu fekkee xeex moo jot ñu génn dem xeex yi xam nga loolu fekkee nga ko yow. waaye bu fekkee privilégié des ñu génne leen teg leen fële loolu moo war a jeex que les jeunes s'engagent dans les questions politiques que les jeunes s'engagent dans les questions de développement xam nga lu tax mhm. si on ne le fait pas c'est une bombe à retardement dafa am benn benn benn écrivain benn journaliste comme yéen foofu lay tëjee bu bind ne c'est un Burkina bi daf nii booba day bind di attaquer gouvernement bi yaayam ne que ah yow kële day daf la doon tëj waaye kii njort naa ne du la tëj da lay faat te man ñenn rek laa yërëm muy sa doom yi mu ne que nos enfants pris individuellement auront-ils le confort et la sécurité garantis lorsque la horde des sans-abri des affamés des sans-emploi et des sans-avenir se dressera pour réclamer son avenir avec les armes de la haine mu ne ko ba xam suñuy doom ñun ñëpp daañu am confort bi war nekkin gi war dëkkuwaay gi war bu fekkee ne ñële groupe bale nga xam ni amuñu fu ñu dëkk amuñu fu ñu fanaan amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñu liggéey amuñu sax avenir bu certain jugandoo nanu xeex si seen moomeel ci askan wi ci dëkk bi te niñ koy xeexee ànd ak violence kon naka la ñuy def bu ñu ko réglé jamono jii dootuñ ko mën a réglé te dans ce cas réew mi day dugg ci guute goo xam ne kenn doo ci ko mën a régler. jërëjëf euh, Mamadou Ounith euh, euh, Touré di jàmbaar mbokki moom la ñu invité woon moom moo nekk tête de liste coalition Jàmmi Sénégal ci élection député ñu dégmal fanweeri fan ak benn ci weeru sulet mbokk yi li mu nekkoon seen émission pencum réew mi ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.